yëfee ca Pikine la amee ni ngeen ko gisee ci image yi nii ay wata yu ñu fa yàq euh, amoonub jàppante euh, mu di lu doy waar loo xamante ne ji ca Pikine la xew des na ci dellu siwaat ak yéen nu mu gën a yaatoo ci li sooke ay wi li indi jàppante bi ak yàqu-yàqu ya fa am fàttali ne eh, takkateer yi kon ña nga ña nga ca ngir di régler situation bi waaye daal fitna jooju kon lañu ci nemmeeku mu di eh, mbir moom it noone la ñu ko nemmeeku woon démb fële kon ci fi nga xamante ne ji moo di ci diwaanu la Assainies des na ci eh, dellu siwaat waxtaane leneen ci xibaaru timis yi mu di ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy Front démocratique pour une élection inclusive di kuréel gu taxaw ngir bëgg ay élection am ci réew mi te duñ ci boot yi kenn ñoom nag euh, xëyoon nañu dem ca cour suprême daal di ko yóbbulu këyit këyit lañ ca jublu moo di ñu daal di euh, arrêté doxalinu wote mu di processus électoral bi waaye it bëgg nañu li nga xamante ne ji mooy décret bi convoqué euh, collège électoral corps électoral bi kon ñu daal di koy neenal loolee nag gis nañu ne bu ñu bàyyee mu yegg ay élection yu nar a am ci réew mi ay caaxaan lay doon gis-gisu kenn ci ñoom di Mamadou Diop Decroix la ñuy teewlu ay kàddoom Alioune Dissa Prera ak Alioune Diagne ñoo ko taataan. ñun nag danoo def recours pour wax ne cour suprême na euh, annuler décret bu président jël parce que am réew yoon la war a dox amaa ñun ànduñu ci arrangé wuñu waaye koy ba rek ci yoon lañ ko teg. waaye dafa mel ni réew mi léegi dafa toll foo xam ne ah, euh, situation bu garaaw ci lañu parce que loi mënu fee ne nga dëggaate loi signé décret ba pare na na ci nit ñëpp ànd nun duñu ci ànd duñu ci saaga kenn duñu ci xas kenn duñu ci tam kenn dëgg dëmm waaye sañ nanu ne àndunu ci dañuy ñëw wax cour suprême ne ko waxal ci mbir mi na nga annuler décret bi ba pare na nga parce que mu annule décret bi moom c'est terminé ñun loolu euh, la wax moom la ñu bëgg vingt 24 bii ku jàpp ne buñ sa yeggee élection mooy am déedéet simulacre d'élection mooy am te bu boobaa mbett mu garaaw a a garaaw candidat bu euh, Diomaye président ci programme bi mu tëgg dañ cee dégg waxi monnaie locale maanaam réew mi am koppari boppam du sukkandikooti ci CFA loole nag euh, waxtaane nañu ko ak ñu bari gis-gis it bari na te wuute bokk na ci bopp Bakary Domingo maane gis na ne bu boobaa day tax réew mi kon moom boppam mënal boppam li ñu naan souveraineté wuuteeg loolu gis-gisu docteur Cheikh gi ndax jàpp na ne du lu ñuy xëy xëy rek di def dafa bari fu mu war a jaar ak ci yu war a sukkandiku. reportage Pape Fara Gningue ak Amadou ci programme am coalition Diomaye Président ñoom lañu bëgg moo nekk koppar goo xam ne Sénégal moo koy moomal boppam li nu mel nag ku ci ne am ci sa xalaat. am monnaie national loo xamee ni la lu mën a nekk la ndax risque yi ñu ci gis ci yeneen dëkk yëpp mooy euh, monnaie boobu monnaie unique monnaie national boobu euh, di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ci valeur am ba mujj euh, daanaka comme ni ñu ko gisee ci yenn dëkk yi boo waree jël cent mille daanaka ci brouette lay lay nekk. sa bopp boobu weesul nga am sa monnaie locale sa monnaie bopp monnaie boo xam ne daal. kenn du ko xootal kenn du ko arrimer si beneen monnaie. maanaam dañu ko convertir di di euh, ubbi ay bunt ñoo xam ne daal ay samba booy ñoo xam mun na attaquer monnaie boobu donc pour man les garanties sont beneen coppite bi nga xam ne fësee nañ ko teg moo nekk wàllu vice président tandem bi nu mel dina tax ñu wàññi doole njiitu réew mi. Euh, xoolal américains yi ñoom bu ñu élire seen président en même temps dañuy éliraat n'est-ce pas euh, disons euh, seen vice président loolu la ñu pour man dafa am solo lool mun day wàññi d'abord pouvoir disons président de la république deuxièmement day tax poste premier ministre ñu supprimer ko. xel mën na xalaat effectivement ne euh, pour waajal euh, bu ñu jëlee pouvoir bi Ousmane Sonko nekk vice-président wala euh, ba ñoom ñaar ñu mën a nekk ñi nga xamee ni ñooy doxal dëkk bi ñu bari li doon xaar mooy plutôt mu am benn président boo xamee ni bu ñu bëggee wàññi doole ji nga xamee ni moom la président am te ñëpp jàpp ne dafa ëpp. waaye ñenn ñi jàpp ne mbir mi dañ koo def ngir Ousmane Sonko. te li nu mel mun naa jur xëccoo ci kaw bopp nguur gi. Ousmane Sonko du nangu poste premier ministre pardon vice président même bu ñu ko joxee poste xam naa du ko nangu. Euh, seetaane bar na bar na doole su fekkee moom dem na ba accepté loolu nit ñi di ko suuxal di ko nee booy bi yaa ko choisir ainsi de suite après réeroo euh, am seen biir vraiment jaru ko. effectivement président ak vice président comme ñun miinuñu ko mën nañoo xalaat ne mën na am ñaari pouvoir yoo xamee ni. dañuy dañuy xëccoo euh, ci biir euh, kuréelu ki nga xam ne ni mooy jiite. ci élection présidentielle yi nga xam ne ci lañu jëm programme yi tàmbalee génn yenn ci ay points yoo xam ne daan nañ koy yëkkati loolu nag indi jiixi jaaxe ci askan wi ndax ba ñu moomee sunu bopp ba léegi di indépendance jaaru coppite yu ñu mel mosuñu koo am. des ba léegi ci campagne électorale bi candidat yi lu beneen candidat mooy El Hadji Mamadou Diaw di Mame booy Diaw ma nga woon ci diwaanu euh, Kër Massar lu aju ci kàddu yam fa yëkkati bokk na ci fexe ba jigéen ñi mën a kon mënal seen bopp li ñu naan émancipé ci bépp fànn Mame booy Diaw la ñu teewlu kook Aminata Ba. dafa jekkatul au vingt et unième siècle suñu ay doom nekk école bu ñu gis mbaax bu ñu ñeme dem classe ndax amuñu sax ku leen di pour ñu am ay serviette hygiénique loolu dafa war a dem ci réew mi dafa jekkul dafa jekkul suma ay xale jigéen di nekk ay école yi nga xam ne amuñu toilette donc ça ce sont des engagements fermes que nous prenons bu maam booy jaawoo faloo S'il y a un gouvernement de 30 ministres, il y aura 15 ministres hommes, 15 ministres femmes. dafa jëkkatul au vingt-et-unième nangu ay jigéen di continuer di wol seeni ay dugub ñu leen di ay moulin dafa doy kenn du jëlati jigéen Sénégal di ko soxna Khadija Maye Koor Diouf mooy maire bu Golf Sud moom jàpp na ne koppar yi nga xamante ne ji dañ koy dugal ci wàllu éducation dañ ko war a jébbal collectivité territoriale yi ndax éducation dafa bokk ci li naan compétence euh, transférée mu gis na nag nga euh, joxoon leen koppar yi ñuy doxal dana bokk ci liy gën a ñoŋal yëf yi ay kàddu la yu mu yëkkati ci jamono ju ñu doon daloo euh, taax mu lu ñu doon tabax kon ci école primaire bu amoo 2 Khadija Maye Koor Diouf ñu teewlu ay kàddoom ak. Alioune Dissa Préra Mamadou Diop. ndax nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy maire commune yi dañu dénk éducation wu xale yi maanaam école primaire te nag euh, bu ñu xoolee budget yi nga xam ne moom lañ ciy def si ñun pour ñu mun ko doxal dafa néew loolu ñu nekk ci commune bu nga xam ne am nañ plus de quatorze école primaire am ay écoles privées am ay écoles euh, ay cases des tout petits ñu ñuy jox lu néew a néew loo xam ne ah, matul sax euh, quarante millions pour ñu entretenir ko wala pour ñu tabaxaat ma xam ne loolu mënut a nekk donc ñu ngi lancé appel bu mag. à tous ceux qui seront fii maanaam ñi nga xam ne danañ leen dénk réew mi ba ñu xam ne bu ñu bëggee doxal ñoŋal éducation nañu jël xaalis bi nga xam ne dañ ko war a def ci école ñu jox ko ci communes yi bi nga xam ne ñoom la ñu dénk éducation boobu ba nga xam ne lépp li nga xam ne war nañ ko cay def ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci base bi ñu mën koo def ba nga xam ne danañ am ay doom yuy jàng ci ay écoles yu mucc ayib ndax nag boo bëggee nit réussir dafay mettre les moyen te moyens yooyu mu ngi ci état bi nañ ko décentraliser ci mairie yi ak ci collectivité locale yi ndax ñu mën ko doxal ndax ñoom ñoo gën a jege population yi kuréel a ngi ñu naan COSAP di euh, coalition nationale et internationale des mouvements de soutien de Amadou Ba kuréel la gu jaboote mouvement yi jàppal tànk Amadou Ba ci réew mi ak ci bitim réew nee nañu daañu def seen kéemtalaay kàttan ba seen mbër génn ci élection yi gagné ko premier tour ngir loole nag tax na daañu sol seenu dàll dugg dëkk bi dajeek askan wi wax ak ñoom gindi leen euh, COSAP vice présidente ba la ñuy déglu Nafissatou Gassama lay wuyoo. di woon Sénégal di woon àdduna di woon Amadou Ba ne y a une grande coalition nationale et internationale comme je l'ai présenté tout à l'heure bu taxaw takk ndigam fas yéene ko jàppale pour gagner l'élection au premier tour. donc après les travaux on a mis en place un bureau. bureau nag structuré nañ ko. maye nañ ko dans le territoire national et international fas yéene takk suñu ndigg fu militant am fu électeur am ñu fekk ko fa. convaincre ko wax ko kan mooy Amadou Ba ak lan la mën a apporter le Sénégal ëllëg pour wan ne c'est le meilleur profil par rapport à son parcours par rapport à son comportement vers les Sénégalais par rapport à son discours parce que il assure et il rassure dalal na xelu Sénégalais yi du wax lu ñaaw du def lu ñaaw du tontu liggéey ko tax ak yóbbu Sénégal ca kanam. Ah, mouvement bi kañ la jóg mouvement bi nag dafa am ay mouvement yu bëri. yu judd woon des années et des années di liggéey au niveau national di liggéey au niveau international ñu mettre en place benn plateforme di waxtaan ci la ne nag comme dañu nekk ci benn groupe ku ne di waxtaan ak ñu ñuy def ba far am. Pape Malick Ndour mooy jëwriñ gi ñu dénk ndaw ñi indi na kàddu leeral jëm ci domaine agricole communautaire bu Njombato. bañ ko liggéeyee ba léegi kon yëngu-yëngu yi mu di activités yi tàmbaliwu fa muy xam le nag léegi tey kon activité tàmbali ndax daal gis na ne eh, lu aju ci ndaw yi fekk baax funjuñ daanaka fukkeet a ngi ñuy toog di xaar yëfe sotti ba ñu mën ci di liggéey mu ne jafe-jafe yi suuf di problème foncier bu ci amoon kon moo taxoon liggéey bi xawoon a yeex Pape Malick Ndour ay kàddu yu mu yëkkati ca Foundiougne gannaaw ab contrat wala ay contrat yoo xam ne dana ko fa signé diggam ak lu toll ci ñetti téeméeri ndaw jëm ci départ dim kon ci programme bii di xëyu ndaw ñi ñu teewlu ay kàddoom moom ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour euh, ki ko taataan mooy Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey pour ces nouveaux contrats bu ñu def un an la ñu def des contrats qui vont durer trois années donc pendant trois ans les contrats que vous avez signés dañuy continuer di am loolu nekk innovation majeure boo xam ne ñu koy apporter ci programme xëyu ndaw yi Foundiougne c'est une zone boo xam ne émigration irrégulière daf ko xaw a sonal donc fii war nañ fi def discrimination positive pour mun a yokk quota bi loolu wax ngeen ko sànq seen dak bi nga xam ne dak première génération wala dak seconde génération la bokk muy nag da ñoom baatoo man maa nekkoon Prodac c'est vrai travaux yi yéex na parce que moom la woon ak Dooji moom la woon ak Fafa Kourou moom la woon aussi ak Boulel au niveau de Kaffrine ñetti dak yëpp commencé nañu yéen a bokkoon ndey yéen a bokkoon baay waaye dafa mel ni daf leen xaw a raw ñoom mais lu taxoon ñu raw leen mooy fii dafa amoon problème foncier bu amoon bu ñu xawoon a sonal tardeel ñu lool ci déploiement bi ba tax ñële commencé yéen ngeen yéex a commencé mais yéen yéen a bokk même financement yéen a yokk même enveloppe yéen a bokk même projet donc suñu demee ba mun a commencé Kolda mun a commencé Kaffrine mun a commencé Linguère yaakaar naa suñu commencé wul Foundiougne jafe-jafe yooyu moo taxoon mais jafe-jafe yi levé nañ ko études yi def nañ ko yaakaar naa su lu yàggul dinañu lancer les travaux du DAC de Niombato le financement il est là les études ont été réalisées le foncier aujourd'hui est mis à notre disposition Inch'Allah nous allons travailler pour démarrer les chantiers dans les plus brefs délais Mérina Ndakhar ak Koul ay dëkk la yu nekk ca Kees askanal ñoo ngi ci mbégte di jóor mbégte mi mooy yàgg nañoo jooy courant fu ne jooytu nañu ko fa waaye ak lëndëm ci lañ doon dund tawat loole nag am na saafara ñu ànd ci leeral ak Cheikh Anta ak Sey Latir askan wi yeewoo ci dikk yi ñuy wax looyeen ñoox looyeen mbaar jàpp sanc tibaar gàdd ñas nekk ci Mérina Dakhar ñoom ñëpp bëgg di woye ko fecc nee nañ ay at a ngi ni ñuy xaar am courant waaye tey jii de lamp yi tàkk na dëkk bi leer na nañ kontaan nañ trop ndax lii lañ bëggoon suñu dëkk mu leer te dëkk bi leer na dëgg yàlla am nañ courant bi ñu amul woon courant dañoo sonnoon ba dee mun ñoo saabi suñuy portable bu ñu amee glace dañ koo jënd tey nag moom lamp yi dina leer nañ ñi moom di neexee ngay jaay ci guddi gi jël sa palaat jël say fataaya ak yooyu di jaay te loolu ñi ma woo ko woon ne man nga ko ndax te ne daal doo seen dara dëkk bi day leer nañ maire Mérina Dakhar ne nag lii de mbégte la lii tax itam ñun ñëpp ñu ba ñëw fekke ko mooy dañu bëgg a wone suñu mbégte parce que su fekkee réew bi nga xamee ni yaa ngi koy yor ñu la koy jox xañ na fukki dëkk ñoo fa amoon làmp tey ngay dem ba naan am na juróom benn fukki dëkk yu fa am wala juróom-ñetti fukk bay yegg téeméeri dëkk yoo xam ne am nañu courant wax dëgg yàlla ah war nga sant yàlla. moom sax nee na ay jafe-jafe ne mekku nañ ko am na yeneen dëkk yoo xamante ne des na waaye daañu def seen kéemtulaay kàttan xaatum ab convention ngir nag courant bi mën a wéy ba ci dëkk yooyu. ñu def convention bi su ko defee ñu jox ko Procolec bu ñu waxtaanee ñun maire yi dinañu wax Procolec fii de war naa am. fii war naa am pour ñu mën a matal. daanaka fii ci Kajoor nag dëkk yu bari nag am nañu courant di ab programme boo xamante ni nguur ak Sénégal moom moo ko biral bu duppee ko accès universel à l'électricité bàyyi ko Kayoor wutali Jolof euh, lu aju ci jafe-jafe ci wàllum paj askan wayu dund ca Gouloum ak ci yeneen fukki tund ak juróom-ñaar di village yàgg nañu ko tawat waaye nag euh, poste de santé bu ñu leen tabaxal ñenn ci askan ñoo dajale seeni i diim ak seen i daqaar àndandoo ko ki partenaire Euh, fexe kon ba poste de santé am fa mu di lool mbégte la waaye ci ndaje mi ñu ko doon daloo ñoom askan wi yëkkati nañu seen kàddu di sàkku ci kilifa yi diiwaan ba ñu dimbali leen ci courant ngir gën a mën a yëkkati plateau médical bi Mamadou Moustapha Ndiaye ak Sidi Thiam la ñu ci yàndal kan wa yeewoo ca gulum mbecco gulum ngayeen gulum tëgg ci koñ saara dooki luy wolof luy pël lamdu ak yeneen dëkk yu nekk ci commune bu Kamp ñoom nag dañoo am jafe-jafe ngir am barabu fajukaay ñi nga xam ne ni dañoo feebar bu leen di ci ay wópp yaa lan leen teg ngir réew la jigéen ñi nga xam ne dañoo war a mucc sage femme bi ay lampe torche lay utiliser. bon fii nii par rapport ak évacuation bi c'est tout un problème en même temps manque d'électricité aussi on travaille avec les moyens de bord guddi accouchement donc ngay taal ak sa torche loolu dafa métti évacuation nga dem ba si yoon bi opiyaay ngay kii amoo ambulance amoo dara. ci wàllu matériel bon am na ay manquement yu bëri euh, donc fii nii euh, comme que milieu rural la. li nga xam ne moom nga gis nga jéem see jàppandi pour mën a jël en charge bu baax sa malade instant bii nii bëgg naa ñu jàppale ñu d'abord ci ambulance pour évacuation en même temps tabaxal ñu benn maternité bu mucc ayib nga xam ne tout sera équipé. ñu sonn lool di xaar njàpp na la nguur gi askan wa daal di takku daal di tabaxal seen bopp barab bu yees bii ñu mujj koo sax def lii di ab post de santé biñ ko doon daloo ñoom nag ñu profité waxaale seen jafe-jafe yi ni jànkoonte. te di sant doom yi waa dëkk bi yëpp parce que lii yëpp bu amee ñoom la ñoom ñoo engagé wu tabaxoon yoroon seeni local ñu dem ba nguur ñëw gis ne comme que góor góorgóorlu ngeen ba yegg si fii donc danañ leen changé case de santé mu nekk poste de santé bañ ko defee nag doomi dëkk bi yëpp taxaw si. waaw donc loolu moom dafa am parce que jigéen yi ni ngi naan même bu ñuy rewle ay jigéen euh, guddi gi ay torche la ñuy taal ak seen portable donc il faut que courant am mais courant ci wàllu dëkk bi nag mooy problème bi donc looloo tax tey daal inauguré nañ. poste de santé yàlla nañu yàlla dimbale tamit fii ak diir bu gàtt waa Sénélec ñëw fi ñu inauguré sun courant. association ñi nga xam ne moo dajale sage-femme yi nekk district sanitaire bu daara teye woon ndaje mi daal di profité ñoom it jàppale leen daal di dépister ñaar téeméeri jigéen ci feebar bii di cancer bi nga xam ne mooy jàpp buttu njurukaay ak cancer bi jàpp wenn sagara ngay xeeñ ci diwaanu ñii bi sabab li moo di lenn ci askan wa ñoo ne daal du ñu ànd ci suuf soo xamante ne ji gis nañu ne. ci mbiri politique ak caxaat caxat moo tax député maire bii di ami Ndiaye Gniby euh, bëgg koo jëfandikoo ñu ne nag loolu duñu ko seetaan collectif gi tudde seen bopp ànd siggil Gniby janoo ci démb ak taskatu xabaar yi ngir doon ñaawlu kon doxalinu maire ba di Amy Ndiaye Gniby nday aw béy ak maam góor wi lan mbooloo mu takku lañ fekk ca quartier général bu coalition ànd nawle ay militants yu ànd ak confiance lañ fa fekk. oui sentiment de confiance donc euh, xam nañ ne actuellement. waaw damay lancer autorité appel commencé ko ci président de la république son premier ministre ak ki nga xam ne mooy suñu ministre transport moo suñu buntu ci gouvernement bi pour ñu xamal leen ne leen ni ñuy liggéeyee métti ay nit nag bu ñuy liggéey te gisuñ njëriñ ci seen li ñuy maa ngi leen koy junj mu di eh, coow lu am ca diwaanu ñii bi coowal suuf lu aju ci anam yi ñu yoree mbiri eh, doxin loolu lañ naan ko affaire publique loole bokk na ci li eh, indi ak réero ci diggante député maire bi di ami Ndiaye ñii ak lenn ci askanu ñii bi collectif ànd siggil ñii bi janoo ak taskatu xabaar yi ngir di ñaawlu kon na seen maire ba yoree commune ba ñuy leer ànd ci ak ndaw nday aw bi yëkk maam góor wi lan ciy leeral fekkee ne nit ki jëlal nga ko dignité am jëlal nga ko lépp desalatoo dara ci bopp. collectif bi duppee seen bopp ànd si ngir ñibbi ëmb daanaka ndaw yi yeewoo ci ñaar fukk benn village yi fare ci ñibbi di ñaawlu jamono ji yoneen bi nga xamante ni député maire bi di Amy Ndiaye ñibbi yore na ko seen maire bi lee. première adjoint fii may wax ak yéen ñoom ñaar jubawuñ ay conseil municipal am ñi ngi fii nii nit ñi dañoo sonn il faut que mu arrêté bàyyi li muy def may nit ñi jàmm nekk ak nit ñi ci jàmm. boo bëggoon a dem ci maire bi tey wuti benn pièce. boo laajee ñu ne ma nga fa da ngay xaw a ragal. il faut que ça cesse. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñi leen nag seen maire bi lii dafay caxat caxatee alalu commune bi te tegu ko fenn. lotissement yi mu dagg cinq terrain lii mu jël deux mu jël trois jox ko borom këram. du dëgg du yoon. poste de santé bu bonja bi ñu xaymaa li ko war a eggale juróomi million mën na koo eggale. moom madame la maire Amy Ndiaye mu jël fukki million ak juróom benn ne da koy eggalee. ñaareel bi mooy wàllum liggéeyu ndaw yi te soo demee ba fayee ko ji ba ñëw amoo droit dem ci sa kër këram ngay ñëw jox ko mu dagg ko ci digg bi oto bii nii ku fi nekkoon daf ko doon abal nit ñi ñu siy yóbbu malade léegi lépp ba pare oto bi yaa ngi dégg mu koy jël di si dox ay soxlaam collectif bi lee maa ngi ko doon benn say di woo nguur gi mu delloo alalu dëkk bi ba ñu ànd ak moom c'était pour que mu yërëm ñu ñun askanu ñi bi ba ñu pour que mu def mu def yitteem développement ñii bi am na ñoo xam ne emprisonné nañ leen am na ñoo xam ne xuloon ak ñoom. ak fa situation bi la toll membre collectif bi ne duñu des ginnaaw benn yoon ci bile xeex ba tax na ñoom ñi la ñuy woowaat seeni ay ñooñu ngir ñu gën a booloo doon wenn say ngir sàmm seen alal dëkk bi lee. na dem na dem na dem jéem na noo jokkoo ko député maire Amy Ndiaye Gniby ba léegi si nii nanguwul yiy yàbbi ci tuuma yi lee. ñeneen a ngi ñu nekk ci jaaxle mooy chauffeur rek transporteur yi ci diwaanu Kaolack li jur jaaxle gi mooy am nañuy bor ci banque yi te mënuñu ko fay li waral situation bi nee nañu liñ leen tere ñuy daw guddi. moo tax lañ daan am ci versement mënatuñ ko am ba tax mënatuñoo fay banques yi li ñu warloo ak ñoom tax ñu yëkkati seen kàddu di sàkku ci njiit réew Macky Sall mu jël ci matuwaay nee nañu matuwaay bi ci gën a gaaw nag mooy ñu baleen ñuy daw guddi donte sax dañ koy teg ci kawi condition ak i mesure ñu teewlu euh, ki nga xamante ne ji moom euh, moo wax ci seen kàddu Babacar Ndour lay wuyoo ñu déglu kooku Ousmane Deme. waaw damay lancer autorité appel commencé ko ci président de ak ki nga xam ne mooy suñu ministre transport mooy suñu buntu ci gouvernement bi pour ñu xamal leen ne leen ni ñuy liggéeyee métti na ay nit nag bu ñuy liggéey te gisuñ njëriñ ci seen li ñuy liggéey war nañoo taxaw waa état ba nga xam ne ñoo fi nekk pour ñu jàppale leen dimbale leen mooy daw guddi bi ñu aaye métti na trop ci ñun métti na trop ci ñun te amatuñ ci dara ñi nga xam ne dañoo leb banques yi banques yaa ngi leen topp ñoo fay ñi nga xam ne lebuñ banques yi mënatuñu am dépense ñuy dund ci biir gaaraas bi mënatuñ ci am dara ci biir gaaraas bi kon loolu yëpp bu amee ñu sonn dañoo war a woo état du Sénégal mu jàppale ñu dimbale ñu pour mu dindi mesure bi pour transport bi mën a dox te li ci gën a ñaaw mooy yow mënuñu comprendre ñi moom ñi moom transport ñu aaye leen jël ñoo xam ne war waruñoo def transport ñu daw transport. kon nag loolu bu amee kon nag loolu bu amee war nañoo taxaw woo ñi nga xam ne ñooy askan wi ak ñu ñu fal wax ci rajo ba ñëpp dégguñu moo doon woote bi. moom lañ leen doon xamal pour état bi gën ñoo jàppale dindi mesure boobu pour transport bi jëm kanam ñun dañu ko waaye ba pare waaye wargane yi ñu daw kon loolu nga ñooñu nga xam ne waruñoo def transport ñu bàyyi leen ñu jël client di ko def transport ñun ñi nga xam ne ñoo moom transport ñu aayi ñu mesure boobu ba juróom ba léegi man mosuma ko gis te état wata doxalee mesure boobu kon nañ ñu ñuy daw guddi jàmm ñooy loolu la ñuy lancé di ko ñaan bras de feruñ xëccantewuñ sonn nañ suñ liggéey doxatuñ nañu dimbale lever mesure bi transporteurs yi mun a daw mun a am dara. jeexal mbokk yi xibaaru timis yi ak communiqué bi bàyyeekoo ci CONACOC mooy commission nationale de concertation sur le croissant lunaire kuréel gi ñu samp ngir ñuy séentu ak saytu weer wi daje nañu tey jii ci RTS télévision Sénégal. Euh, fa la ñu xamee le ne kon weer wi weer wi feeñ na ci diwaan yu bari ci réew mi mu ne seen ndaw yi nga xamante ne ji ñoo nekk ci réew mi rawatina ci këri diine yi jokkoon nañu ak ñoom ñu firndeel ne ne weer wi gis nañu ko euh, li muy jur nag mooy koor gi suba ci talaata ji fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci lay tàmbali kon xibaar baa ngokk euh, koor gi croissant commission croissant lunaire nee na suba lay tàmbali di talaata fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2024 ñaanal ñëpp ko rok jàmm di leen wax baalu euh, baal di leen baalu àq di leen wax déwénati di ñaan sunu borom mu may ñu kàttan bu ñu ko yeggalee te jaamu yàlla guñ ci séentu yàlla sunu borom nangul ñu ko mbokk yi jërë ngeen jëf fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20 di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane jëpp yàlla ñu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm kooru jàmm.